bëri nañ daal bëri nañ ñun ñoo nekkoon boo yu grand yi waaw et puis ñoom zos ñoo toppoon ci ñoom baaboy ñoom yaaram waaw ëmma ñoom Moussa waaw après ñoom xaarim ga jege ñoom topp ci après ñoom sos topp ci après génération par génération génération par génération boobu au moment boobu fekk na ñoom Ousa Sow Papa Sow ñu ngi beneen côté bi ñu ngi bi parce que man Ousa teelu ko miin ok ma ko miin moom ni sax presque bëriwul waaw teelu ma ko mel papa laa gën a gis presque lu bëri hmm. parce que dama bëreek ak maam biram bëri naa ak seen rakk bu ñuy wax ifra ifra deux trois fois je hmm. crois bu ñu bëri jël jël bi ma daan <laughs> kenn mënu la ko wax kon ñoom seen famille ñëpp a mën boo xamante ni extraordinaire hmm. macha allah yàlla na ko yàlla yërëm amiin ñu dellusiwaat ci laa ko soog a waaw fan boobu nag maa ngi nekk benn cikili boo xam ne kenn mënu la ko expliquer <laughs> amoo photo yooyu am naa ko <laughs> mais loolu sax ay. ndeysaan. loolu ay ay ay ay de d'état la kenn du ko génne. Ah. gars yi dañu may kaañoo. <laughs> mbapat bi gën a mag bi nga bëree. bi gën a ngande bi nga bëree ban la. je crois 72 euros face 72 euros face 72 euros face. laa njëkk a bëree am 100000 francs loolu lañ la ci fay. maa ko jël. 100000 nga gagné. waaw. kese Père Mbaye Guèye moom ah 100000. yow boobu man mënuma am 10000. non. c'est vrai yi nii laa ko téye laa la wax nga xam ma gëmëloo ngay xeeb sama cent mille <laughs> yaa bëri caaxaan <laughs> ma gagné cent mille mu nekk lu rëy parce que auparavant da doon am ay saaku ceeb ok ay meew affaire yooyu suukar suukar parce que man yaraax Dalifort euh, presque mbapadu pa Birahim ay père tubaabu joor ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm Euh, euh, ñaari tali mooy mooy Père Boy Bambara mbapat mm. yooyu yëpp bëri naa fa mais bi ma gën a marqué jeu d'eau face de l'orme waaw face de l'orme mosoon nañ fa teg benn télé ay DVD yooyu ñun ñaar an am na jour man maa waroon a finaalu affaire bi commencé taw waaw gars yi tas làmb ji tas ñu naan waa Fass ni la def bu seen mbër daanoo kërëb eh, kërëb foofu lañ doxee ba ban parcelle amuñu paas nga di ba je te jure amuñu paas dund ci lu metti bëri naa jeudi yaraax vendredi parce que jeudi bi dañuy dëkkante rek ku ñeme sa morom. waaw bon vendredi bi la ñuy tirage. Mhm. bëre première tour arrêté ne xale yi ñooy léger yi ñooy bëre. samedi dimanche presque quatre jours ma jël tournoi bi. yaraax yaraax yaraax magasin. magasin. bon ñu ngi tegoon ay saaku ceeb yu xaw a bëri. ak ay affaire quoi man bi ma jëlee final bi ñu jox ma ñaari saaku ceeb. Mhm. ak enveloppe. Mhm. mais xam nga final moom bu ñu la ko joxee laa mu day tas. gars yi topp enveloppe bi enveloppe bi enveloppe bi gars yi yenu saako ceeb dajji enveloppe bi fekk ci 1000 francs laa ñun ñu ngi nekkoon presque ay dix personnes jógee parcelle amuñu paas. te mille francs ne ci ci enveloppe bi. ak ñaari saako te ñu ngi war a jógee yaraax magasin. yenn saako ceeb ku yenn jox sa morom. ngeen di dox ba croisement Cambérène. ñu waxaale ak benn clando boobu mënatuñ dem jeexal nañ tàkk. léegi ngeen waxaale teg ko ci. ak dix personnes ak non pas dix personnes ñu mën a yéeg yéeg. yow ñu mënul yéeg dox man ma yéeg. ok ñu mënul yéeg dox ñu daje koñ ba. te du am frustration. ak plaisir mbégte ñu ñëw sama mère ne ma ana ñi nga àndaloon ma ne ñi mun a indil siwo. mu natt ceeb daa ji saaku ceeb bi ku ne mu tëbal la dama yóbbu. mais loolu lu ko gën a neex gën ko rëy maa jël mbapat bi rek jar na lu ne. billaay waaw. billaay. Oh. bi ma njëkkee jël nag dama ñëw sama yaay dañ koy sàmm. ci guddi wax wax mu ne ma kenn mënu si dara nag bi parcelle lañ ko tegoon unité nga jël ko. ñu saam ko force mooy bañ ba sonn mu ne ma dañ parce que ñi nga àndal amoo loo leen jox. te doon sonn te yow mooy loolu. te nag bi nga gañee ren di ko ñu séddale ko. ndeysaan. waaw coono boobu yëpp wax dëgg dund nañ ko si mais ak plaisir tamit quoi. nga nekk ci ngay bëree dinañ ñëw de gars yi xam naa ne mu ngeen tuusu Garga Mbossé mais dina ko tuus dina tuus léegi léegi léegi mais dafa am lu ma bëgg ñu waxtaanee ko. Mhm. ngay ñëw di ñëw ba Garga léegi ñu nag léegi nag Garga Mbossé koñ bi copain yi yegg nañ ni Garga fayeku na un million. Mhm. un million ci laam. Euh, presque man nag teelu ma fayeeku un million ci làmb su ma juumul est du may bëreeg lees waaw wala non parce bi ma génnee ci parce que bi may bëree Bébé Saloum ñu ngi ma fayoon huit may bëree ci clafu Gaston bi maa ngi jóge woon ci ay quatre cinq cent sept cent mille côté yooyu daal parce que combat boobu je laa jóge dugg ci bi. la bi ñu ngi ma fayoon cinq millions ok cinq millions cinq combat. waaw <laughs> non non. Euh, du ko mat parce que euh, avance dañu lay cinq avance mille jël ci avance ménager yeeg affaire yooyu saw sawaan yooyu daal di lay jox li des quoi nga préparé. Oh. soo paree ñu jox la li si des. nga jël waaw bon non loolu c' juste pour 3 combats yi. ok dama juum. waaw 5 millions pour 3 combats bon biñ après ci lañ wax ne dafa war am demi finale demi finale ci laa bëreeg laan 2000 pièces. waaw ñëwaat bëri final. bëri final mbokk yi kooku moom mooy Garga Mbossé xale la boo xamante ne nii wax nañ leen ko ci biir kër gi dafa màgg fekk fi magam mu doon mbër mu topp ci tànk yooyu ba tey ji macha allah gis ngeen jéego yi nga xamante ne mi ngi koy def ci làmb waaye ba tey wax naa ne ko ci biir Bantamba dañ koy ànd saa su nekk rek ak Thiam Fashion borom Grand Dakar Mohamed sama waa ji wax naa la yow saa yoo ñëwee rek téléspectateurs yi kontaan wax naa leen moom moo génn moom mooy ak man ci doy waar yi ñu ngi ci été bi daf koy oyofal rek mais seddaay baa ngi ñëw mi ngi prépar yu doy waar mbokk yi dañuy dem seetaani tuusam alaaj Bécaye Mbaye ne woon na ma boobu ngay gis nga tigi bàyyi ñu tuus nga xool ko mbokk yi ñu dem ñëwaat. da nga koy seet mu njóg rek nga mbokk yi gis ngeen loolu moom mooy tuus mi mooy tuusu gargo mboose wax naa leen ko moom Garga Mbossé muy tuus ah Yaxya Jóob ni muy tuus Tafatin muy tuus Eumeu Sène muy tuus loolu beneen affaire la Garga Mbossé zos bi muy nekk ci laamu ji ay tuusu xam nga tuusu guerrier lay tuus ah, ah. moom tuusu guerrier lay tuus Garga nga ñëw indi ñu cosaan te doon woo làmb lan la waaw boo ne doonoo làmb day xaw a rëy. waaw parce que ñun ay séeréer lañu. te ku ne xam ne ni séeréer. Mm. fi mu ne boo demoon Adrien Senghor wala gaal gi. Mm. ñi ci tribune bi ñoo mën ñi ci suuf. waaw loolu c'est le sang séeréer day dund làmb. Mm-hmm. boo dégloo woy yi ñuy woy am na benn woy bu ñuy wax naan kuy góor rek ñëwal. làmb sàjj na te làmb yëfu góor la te làmb deret la dañ koy dund. xam nga làmb dafa nekk loo xam ne euh, ñun mënuñ ko expliquer. Hmm. waaw boo ci nekkee nii mu mu doo am na loo xamante ni en tant que mbër quoi nii nii ma toog nii. Hmm. mën naa ciy wax mais bu ma ci nekkee mënu ma la wax ne lii mooy lii lii mooy lii loolu mooy làmb. Hmm. waaw làmb deret la te toll foo xam sa deret day daw. day yëngatu sidit bi day yëngatu. waaw booy def lii sax doo ko tay doo ko tay te boo paree munoo ko expliquer non mënoo ko expliquer man chaque jour ma def loo xam ne si làmb su ma paasee dañ naan ma yow yaa def naa nga mën a gëmuma ko léeg-léeg père góora xoolal per góora ni mu mel ci man ak ni ma ko rusee làmb jeex ma ne ma danga maa saaga non maa dóor <laughs> waaw layel lu muy daj borom ci <laughs> làmb beneen affaire la mm-hmm. làmb beneen affaire la mm-hmm. waaw bi may bëreeg Lac yaa ngi koy wax sànq boo gisee parfois tous mi di xaw spécial ñun dafa am lu ñuy àndal waykat yooyu ngay gis ak tëggkat yi dañuy joué ci làmb dama dugg si waykat bi wooy am lu mu wax. dégg ko ma dégg ko li may tuus maa ngi jooy. séeréer yàlla xam na ko. li oh. may tuus maa ngi jooy li may bëri li may tuus yëpp maa ngi jooy. bi ma paree dem naa toog sama cumukaay lu ma cinq minutes di jooy. <laughs> lan la waykat dafay wax wax yu daw yaram rek. parce que ñaare euh, boo déggee ñu ne kor astu man la ñuy wax mais mën nañ la woy te duñu wax sa tur. Mm. bu ñu nee comme Modou mbay dafa am sœur bu tudd Fatou. waaw ñu ne Kor Fatou. dugg si na ku gis diw xam ne diw gayndee ko jur. façon yooyu xam nga. garmi baa ngi daf lay laal quoi. ndeysaan jàmbaar bi ñëw na wax ko ci sa aussi loolu beneen affaire la. ndeysaan tëgg ma jaar fa ma jaar fa. sa deret di yëngu. waa léegi dégg gi <laughs> waa léegi dégg gi. moom kenn xamul lan <laughs> garga non garga di nga déggee loolu moom xam naa ci géwél yi la mooy tëggkat yeeg ñoom Karbala waaw ñoom Karbala gaa yooyu ñoom Maodo parce que bii passé Maodo moo ma indi moo la indi mais li ci gën a garaaw mooy répété wuñu déedéet répété wuñu dafa ñëw kër gi expliquer ma ne ko lii laa bëgg nga tëgg ko man dinaa fecc te nañ dañoo bëgg baax waaw mu ne ma dinaa ci yokk lii ak lii ak lii man noonu laay demee bu ñëwee ba ci làmb ji entraînement parfois ñu entraîne pare ma ne gars yi su ma defee nii daf leen nii léeg-léeg tamit benn waane bu mel ni Cheikh Tidiane Niang mm. yokk ci loo xam ni wala bébé garga wala bébé garga xam nga day mujjee day waar <laughs> macha allah am na solo ah loolu am na solo Garga Mbossé bu bëree mu neex bu tuusee mu neex tuus mi moo jiitu bëre bi waxtaan nañu ci tuus mi dañuy dugg ci biir bëre bi Garga Mbossé nekk champion mm-hmm. nekk un champion boo xamante ni nii